def ay déclaration su ko defoon ci keneen ci parti bi xëy na doo leen ñu ci dégg mais dafa laal fi nga xam ne foofu kenn waru faa laal moo tax tey ngeen dégg ñu ñu woote woote bii démb lañ ko dégg ñu ne bu ñu xëyee lu ñu mënti def dinañ taxaw ak le monde entier wax leen ñu dégg kan mooy masali wan leen ne Mamadou Lamine Massaly euh, dem na bu yàgg il s'est auto exclu du parti bi mu demee ànd ak Madi Kenya parce que parti dafa am ay règlement dafa am règlement intérieur bu bu bu leer mooy képp ku ci nekk créer mouvement wala nga créer leneen loo xam ne euh, ci biir parti bi la mën nañ laa génne ci parti bi yaa génne sa bopp donc looloo tax biñ ne ñun suñu candidat plan A ba Z Karim Meïssa Wade la Madické Niang génn taxaw ne moom euh, candidat la booba bañ ko defee te ñoom leer na leen ne parti bi nii lay doxee ñom ñoo genn seen bopp te masali ca fu langue gogol la bokkon kon démission du surprise xam nga lan moy indi démission bi nak fofu la jëm moy so taxawé ci aduna bi yépp né yow yaay responsable département Thiès té kenn musula ko fal ci këyit bo len ma xolé xamné amul fenn fu mu taxaw lég mu mat at wala ñaari at gi mu taxaw fa ma taxaw fa ak ñeneen ak ñeneen loolu la parce que du mo la ko jox du lenn moo la ko jox yaa jóg autoproclamé sa bopp ne yaay responsable département Thiès te kenn falu la ko donc ñi ci mën a ànd ak moom ànd ak moom di liggéey ci jàmm ak salaam ñooñu it ba ñu gisee ne dafa teggi tànk ci parti bi def lu parti loo xam ne du ndigalu parti bi dañ ko faa bàyyi dem seen yoon. constaté nañ fan yi au-delà même de Massaly ay ndaw yu bëri ñu ngi jóg di attaqué Ablaye Wade ñenn ñi seen i leader ñoo leen yónni parce que jàpp nañ ne Ablaye di téye mu téye loxoom ci élection yi. tax Macky Sall yombalal na Macky Sall victoire am alors que mom Ablaye Wad ak Barack Obama ak Nicolas Sarkozy ak Macron ñom ñep bu ñu bokku ci élection bi, bu ñu soutenir candidat résultat yi lay joxe parce que élection jour vote bi ken mënu ko truquer il faut mu leer li génné ci urne yi ñu ko sàcc processus lañuy satch, Macky Sall ci processus ba le budget élection yi sàcc ko ba kenn munu ko a gagné élection yi Ablaye wad ne len loolu la xam daw La constitution bi prévoir na bu benn candidat retiré woo ñu redémarrer processus à zéro mu ñëw reprendre le processus à zéro ñu wo union union euh, ñu ONU union africaine le ñu superviser n'est-ce pas processus bi début ba fin nous non, Nous non non duñ ko def parce que léegi nag doo doo wax loolu ba pare dem élection ñu gañe la nga bëgg a ñëw jël ko teg ko ci ndoddu Abdoulaye Wade loolu la ñu wax ne duñu ko nangu tey dootu dootuñu ko nangooti suba duñu ko nangu ginnaaw suba dootuñu accepteeti benn nit say kilifa yónni la wala moo xam yow yaa jëlal sa bopp initiative ñëw taxaw di attaquer Abdoulaye Wade ñu toog di la seetaan beneen bi ci des mooy ki fi jóge ndey mi wax na ko tout à l'heure nekk président fédération départementale bu PDS bu Thiès musul am Moussoul am ça n'a jamais existé Mom nak moo doon taxaw ne mom mom mom moko don incarné la preuve biñu démé ci parrainage ñu jox ko pour mu dem indi ay parrain yalla def na ñun 50 parrain lañu fi indi lu baax 90 lay indi won 40 amul signature parrainage nak signature la ñu donc 50 la fi indi ce qui fait que yow mëno indi 100 signature yu mat ba paré bëgg a coordonnateur départemental lolu mënul nek c'est pas possible ce qui fait que dem bi mu dem dañu naan ko bon débarras. alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu ñun bi ñu dalee nekk PDS ak léegi journée bu mel nii mosuñu ko am bu neexee nii. bis tey PDS dina organiser wu dans toutes les communes du département de cees commune yëpp dinañ dinañ leen organiser Massaly moo nekkoon source de division Massaly moo doon jaxase parti bi Massaly moo doon manipuler Massaly moo ñu doon yàqal ba mënuñu am dara biir Thiès léegi nag alhamdulilahi rabbil alamin kilifa yi nga xamante ni ñoo tekki dara ci biir dëkk bi ñu ngi fi toog dina ñu am dara fii nga xamante ni mooy biir Thiès beneen bi ci des mooy nee na dina dina dina éditer benn livre manit semaine prochaine dinaa dem Paris dinaa bind livre tuddee ko l'enfant maudit de Thiès parce que tànge weesuwul jóg di attaqué koo xamante ni loo am ci àdduna en kër gi mu am Thiès man awuma ko ndeyam amu ko ñii fi toog nga xamante ni ñoo daan tëdd kaso ngir Ablaye Wade gor yaa ngi nii amuñu ci dara lamu am ci alal ñun amuñu ko te lepp Ablaye moko ko jox tay nak bu joggé diko attaquer attaqué jàpp ni su fekkente ne am na nit ku torox ci aduna masali lay doon motax livre bobu bis bu livre am di génn mom le lendemain suñu livre ñun itam dina génn moom nee na un vieux qui a trahi ses compagnons mm. donc ñun aussi dinañu éditer livre bi l'enfant maudit de Thiès mm-hmm. parce que nit ku torox la mm-hmm. voilà donc euh, ñun dal fa ñu nekkoon démb ak bërki démb tey foofu la ñu nekk